Mambay Niang sàcc la. Mambay Niang sàcc la. Mansour Faye sàcc la. Mansour Faye sàcc la. Macky Sall sàcc la. Macky Sall sàcc la. Mbaye Prodac sàcc la. Mbaye Prodac sàcc la. di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen mobilisation bi ngeen def tey bu exceptionnel ngir lan injustice bi nga xamante ni mi ngi dëkk ci réew mi depuis que Macky Sall jël réew mi ba léegi ñii mi ngi leen di tëj. ñii mi ngi leen di rey ñii mi ngi leen di faagaagal loolu nag dañu ni tey AC dafa doy doy na sëkk dafa doy tëj sénégalais yi plus de deux cent détenus yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi kenn defu ci lenn loo xamante ni lu ñu mën a wax la te ci jamono boobu Mame Mbaye Niang mi ngi sàcc alalu réew mi di dox ay soxlaam Mansour Faye téeméeri milliards yu manqué ñaar ñoo ko koy topp te mi ngi dox ay soxlaam diggante bi Diouf Sarr mën wax ni Covid bi fond lekk nañu ko ba jamono jooju ñi nga xamante ni ñu ngi leen war a faj amuñu benn yërmande ci askan wi lu dul di lekk alal joo xamante nii dañ cee war na faj askan wi di wax ne aussi tout récemment heure bii daaw. la ñu rey sunu 14 yoo xamante ni nii ci manifestation yi amoon enquête bi ñu doon wax ba fii France daal di xëddeen rey nañ fi ñaari. takk der yoo xamante ni nii fa la lépp doxe tàbbi géej rey nañ fi Makalu rey nañ fi keneen ak keneen Mariama Sagna rey nañ fi kuc rey nañ fi ñu bëree bëree bëri te ba fii may waxee ak yéen ubbiwuñ ci enquête sax ba di ci jàpp ay nit donc mën nañu ni justice bi à deux vitesses justice corrompue justice boo xamante ni day doxe genn wet justice boo xamante ni day am kumba am ndey ak kumba amul ndey justice boo xamante ni nii boo fareeg Macky Sall ànd ak moom lu la neex def ku la neex door ku la neex saaga justice boo xamante ni nii boo àndeeg ma Sall lu la neex détourné lu la neex jël ci alalu réew mi lu la neex def te dara du la ci fekk donc dafa jeex dafa war a jeex dafa doy dafa doy li nu bëgg mooy complot yi ñuy def président Ousmane Sonko yaakaar ni moom bi ñu defee seen ay sondage gis nañu ñetti yoon ni moom moo war a mën a gagné Macky Sall ñuy teg ay complot yoo xamante ne nii pour rendre ko inéligible loolu dañu taxaw ñun pour faire face le département de Tivaouane tey mën nañu wax ni département bu taxaw la ngir faire face li nga xamante ni nii moom la président Macky Sall bëgg a taxawee ci réew mi muy faagaagal gi mu faagaloon Karim Wade faagaagal gi mu faagaagal Khalifa mu jóg ngir def ko président Ousmane Sonko loolu lañ ne arrêté dafa doy Mame Mbaye Niang tey jii heure bi waroon na koo fekk kaso ba ñu war koo seet xam moom nan la ñuy def ba mu génne alalu réew mi mu ne war koo guqi waaye tey jii mi ngi naan dañ koo diffamé du am amul lu muy ruus amul lu muy jomb président boo xam ni moo jël recordu arrestation politique ci adduna bi Macky Sall li mu ci ay opposant benn président mosu ko arrêté pour lan bëgg a tëj nit ñi te lool du fi amee Massata Samb nekkoon un jeune député bu nekk fii nga xam ne kaasal na Tivaouane yëpp muy Jakarta muy ASP yi muy képp benn tranche boo jël ci Tivaouane kaasal na leen ñu bëgg a tëj làmmiñam arrêté ko arbitrairement bëgg a dopploo làmmiñ bëgg koo tëj làmmiñam mais li nga xamal ni am na ay mille masata yu fi nekk tey jën yi dañoo déterminé wu jël seen euh, Sénégal dañ ciy jël suñu wàll tey duñ toog ñu koy doxal kenn du ci am loo duñ am duñ li ñu war a wax dañ koy wax kon li ñu war a wax dañ koy wax suñuy droit dañ koy xeex kenn du ñu damm suñu làmmiñ kenn du damm suñu loxo pour duñu wax suñu droit kon ñu wax ni jeunes yëpp nañ jël seen engagement gis nga am na ñoo xam ne dañuy taxaw di wax naan dañuy yóbbu jeunes yi ci front yi ñu leen di reyloog ñu leen nee ñooñu seen dund dafa baax ba pare ñun nag suñu avenir moo nekk en jeu suñu avenir u doom moo nekk en suñu avenir u moo nekk en tey buñ ko xeexul keneen du ko xeex yooñu di wax ñooñu dañoo nekk ci situation boo xam ni seen seen ceeb niit na parce que dañoo ànd ak état boo ànd ak lu la neex ngay wax boo ànd ak état lu la neex ngay def dara la ci fekk boo àndul ak état saa boo xëyee xamali sa benn tànk mu ngi ci kon nañuy jël suñu engagement ñëpp nañu taxawaat à pied ferme Sénégal Macky Sall moomu ko Sénégal Marème Faye sàll moomu ko Sénégal ñun ñoo ko moom après Macky Sall Sénégal day continuer kon nag dañu war a xeex loolu waruñu bàyyi Macky sàll lu ko neex mu def ci Sénégal waruñu bàyyi nguur gi lu ko neex mu def ci ñoom dañ koy jógee Sénégal day des suñuy sët day ñëw suñuy seen sëtaat day ñëw kon na ñëpp taxaw nañu takku ñu xeex ñu xeex Sénégal xeexal suñu doom xeexal suñuy sët xeexal loolu mooy mais ñun tey day la ñuy doog tey la ñuy doog am occasion y a à deux reprises yéen presse bi nekk nañ suñu seede ñuy déposer marche préfet di ñu ko lankal ci ay ay yoo xam ni amul amul benn amul benn si euh, amul fenn fu ko teg day bàyyi ba le jour J bu doog a ñëw ni présent de trouble à l'ordre public d'intérêt kii bi loolu moo taxul dégluñ mais am na collectif bi mu ngi dox te am na ñu bëri ñu ci bokk def nañ fi conférence de presse ñaari yoon ñu bëggoon a marche préfet ko loolu moo tax ñun mais ñu ngi xeex ci ba léegi masa na sàmm koy assisté ba keroog mu ñëwaat dellu assemblée incha allah. jigéen ñi jël nañu suñuy matuwaay du ñu bàyyi le président Ousmane Sonko. ñu koy jël di ko sacrifier noonu du ñu bàyyi président Ousmane Sonko Macky Sall di ko jël di ko def xaru tabaski suñu suñu bàyyi Macky Sall jël président Ousmane Sonko def ko xaru tabaski ñun projet bi nga xam ne moom la ñu wax muy passé projet bi du dem te Ousmane Sonko dafa sacrifier diyam yëpp pour Sénégal jëm ci kanam kon ñun war Ousmane Sonko war ñoo gën a gore dañu jël suñuy waay nañu bëri lii am bii passé bañ koy woo bu mu répété Sonko dafa war a nekk président incha allah le 2024 bii président Ousmane Sonko nekk 2024 bii mooy suñu intérêt ñun jigéen ñi mooy intérêt jeunesse bi mooy parce que ñun dañoo sonn département de Tivaouane moo gën a moo gën a riche daanaka ci ci ci Sénégal mais ñun ñoo fi gën a ndóol loolu buñ ko nangu non non aux détenus nga xam ne ñoom la ñu jàpp man maa ngi wax di lancer jigéen ñëpp ñu wàcc sur le terrain Ousmane Sonko nag dañu defal na testament waaye ñun jigéen ñi jël nañu suñu percar ba pare lal nañ ko su ko laalee dinañu laal kon ñun ñëpp pare damay laaj ndax pare ndax pare kon ñun Kajoor li ñu xam mooy xas. bu ñu demee sa xare dañuy xas ku nekk taxaw ni sama tànku kanam sama tànku gin kanam du fekki bu ginnaaw bi kon ñun ñëpp tey président Ousmane Sonko wàccoo nañ ñun te Tivaouane nag daf ci am yaakaar yaakaar boobu bu kenn xaar kenn président Ousmane Ousmane Sonko bu leen xaar moo dor mot d'ordre bi joxe nañ ko mooy gatsa gatsa à Tivaouane lay commencé ñun demuñu Dakar demuñu dakaar fanaani wuñu Dakar fii la ñuy toog mais képp ku laal président Ousmane Sonko mooy que Tivaouane mooy njëkk taxaw temm comme ni mars 2021 amul. de Karim Wade et Khalifa Sall en les rendant inéligibles. Ce guignol de premier ministre d'alors avait même déclaré devant le peuple sénégalais que le nombre de candidats n'excéderait point 5. Pire, il avait même prédit le score avant même que les organes de contrôle des élections dédiées à cet exercice n'eurent à se prononcer. Nous ne jouerons plus à ce comédie politique. Le peuple a déjà choisi son candidat et il s'appelle Ousmane Sonko. commission départementale de Tivaouane répète, personne ne pourra empêcher, empêcher au candidat Ousmane Sonko à ces, de participer à ces échéances. Ah la participation de notre candidat est d'autant plus certaine que PASTEF travaille dorénavant sur l'après ah Ainsi donc, PASTEF appelle toute l'opposition, la société civile, et les mouvements qui se pour la liberté et la justice à faire bloc pour sauver le des dérives de ce régime, de ce régime et sa vision limitée du Sénégal. Mais surtout en 2024, hors du palais présidentiel, l'apprenti dictateur qui en est le locataire actuel. Pour finir, nous en garde Macky et lui diront qu'il sera tenu pour responsable de toutes les actions insurrectionnelles qui découleront de toute tentative de liquidation du président Ousmane Sonko. L'espoir de la jeunesse est le candidat libre du Sénégal. Vive le Sénégal, vive la démocratie, vive la liberté. les patriotes, la coordination départementale remercie tous les militants, tous les responsables et